mais dafa am lu ma bëgg a wax ñoo xamante ni seen dan naan seen budget enquête sans débat la déggal vote sans débat ku toog tele bëgg a wax sànni force d'ordre et de ni non yii ñooñ seen kii dafa sensible bu ci dugg bu ci wax non pourquoi il faut en parler les gars pas avoir peur man ci xaw laa dëkk bunt baas camp base bu Thiès bi ñuy wax ci buntu balaa dëkk man ba may xale dugg naa fa football ba tas ba terrain bi nekkulee tartan du dara football ba tas fa laay defee sam préparation ak lekk laa garay ba ak nekk ak soldats yi matin midi kon ragal du dëkk foofu jamais. ba pare ñëw fi di liggéey ci deuxième institution bi gën a mag force armée royale Balofitaal yi bu ñuy def seen tiir yi tën tën sama noppi sax day riir dem naa hôpital ñu testé ba sonn ñu ni ma dara amul dara ndax teel-teel gu bëri gi. kon ñu dama dëkk ak ñoom ñu nekk sama biir xol ku ci nekk bandi nekk sama ennemi ku ci nekk ku ci sonn mel ne man maa sonn moo tax toujours ma nekk ci seen i wax bii nag je vais parler le ministre de la justice garde des Sceaux Ousmane Diagne le général Jean-Baptiste Tine ministre de l'intérieur ak le ministre des forces armées général Birame Diop man dama leen bëgg sama biir xol parce que ba muy metti gis nañ seen taxawaay moo tax tey ñu jox leen ay responsabilités c'est maintenant on a de vous Fulbert Samb Didier Badji leur mort li leen rey bu leen sori dem leen jëli président Ousmane Sonko jëli ji Pape Alé jëli ji Ahmed Suzanne Camara Ousmane Dia ministre de la jeunesse jëli ñett ñoo yëpp nga teg leen. Suzanne Camara toog na télé ñu wax ko mu ni xam naa ki rey Fulbert Samb ak ak ak Didier Badji ñu laaj ko kan mu ni Ousmane Sonko leen rey ak Pape Alé ñu wax ko mu ni ci gouvernement la ne xam na ko ñoo ñoo leen rey ñu jugee fa mu dem beneen télé ni Ousmane Sonko Pape Alé ñaa leen rey insisté ñu wax ko mu ni xam na nan lañ leen créé ak fan la sax boo deful ndànk mu wax la ko jarul nga wut pis woo mu dëju s'il di par la vérité ne fa di lam-laame nga noq ko ci kaso bi dix an nga baal ma ci wax ji nga dóor ko ci kaso bi dix ans door a def say enquête su boobaa feneen nit ci affaire yu dangereux yi nii la mort dina jeex parce que peine la mort il faut ñu voté ko Sénégal ku rey nit tay ko ñu enquête xam ne yaa ko tey dañ lay rey jël sa cercueil buñ la reyee pare nit kii reyoon dem mi ngi nii ñi ngi nii di suuli ji loolooy régler Sénégal numéro 2 François Mancabou këram lañ ko fekk fokkati ko yóbbu ci commissariat de police lañ ko torturé ba li ko dal dal ko ba mu dee commissariat de police boobu ñan la ku joxe commandité bi ak ñan ñoo ko torturé tout le monde le ministre la justice Ousmane Diagne looy xaar xam naa ne kiw amnistie bi ngay xaar ñu ratifié ñu ratifié quelques phrases mais septembre bu ñu tasee suñu assemblée bii li ñuy ñaan mooy ñu tas ko ah y a des têtes yoo xamante ne mérité wu ñu fa taxaw mësoo dégg dem nañu tel place ni askan bi de lii ñii fii ñii lee mësu toog daa di xulli seen i bët ku wax ñu daa gasante ak yow assemblée bi dañ ko war a tas voté beneen assemblée bu bees ma ne dossier yi on va le mettre la table chaque fois naa leen ko di rap demande nationale la sénégal yu bëree ngi xippi seen bët lekk gi cher naag cherul ñu ngi ni dojj rek affaire justice bii rek la ñuy xaar te dara mënu leen divertir commençant par man li lii ma tax a jug man matin midi soir lii laay nelawee di ci yeewu li may xeexaat sénégalais yépp ci yeneen dossiers yi lii laay nelawee di ci yeewu enquête interne de la gendarme de la gendarmerie le général Jean Baptiste Tine yaa defoon ministre de l' intérieur jëlal enquête bi dem yóbbul ko ministre de la justice ni ko am mu teg ko ci taabulam xool ok cas des nervi nervi ñi ngi fi ah? am na ku ci wax ak Pape Alé am na ñu ci wax ak keneen ak keneen ñi ci wax ak man mii ki leen doon fay ni mu leen doon fay lépp c'est facile ñu yor seen làmmiñ yor ay teere neppi yor seen làmmiñ di ratatati yëpp di anticiper ñoom ñëpp ministre la justice ñëwal seen kaw amul sénégalais buy génn di manifester du casse parce que c'est des bandits et des voleurs sénégalais yëpp ay tàcc ni nii n'ayez peur de rien du tout fu ngeen defee justice les sénégalais seront avec vous et vont vont vont appliquer les cinq commandos marine yi deewoon le 5 janvier demoon di interpeller benn bateau ci géej bateau bi defal naa leen vidéo man leen bateau drogue la am ay activistes yu nekk France naan non ay armes yu jugee kër. yu jige pale ñu ko doon jaaral ci bato yóbbu kër Macky Sall di wax di insisté man leen c'est faux amul bato drogue bu doon traversé la te enquête bi dëggal na li ma wax yow armement yoo xamante ni ba muy jóge port ci ay oto lan ka def yooyu yóbbu ko palais mu war a jóge pale dem kër Macky la ñu koy awal ci ay bato pour temps yooyu ñoom ñoo yoroon dëkk bi dañuy baliser Dakar yëpp oto yi dugal du ñu xam lu ne ci oto yi def ko ci oto yi yóbbu kër Macky Sall mais loolu amul bateau bi bateau drogue la ñuy bàyyi cinq marins yi dem commando ñu dem suñu cinq commando ñu ray leen est-ce que sénégalais dégg ngeen ci benn enquête wala dégg ngeen lan lan leen wax bon finalement lii a tax ak lii a tax ana ñu dee na jeex na ki commandité ni leen dem leen intercepté ji dem leen intervention bateau boobu kooku noonu complice complice la parce que moo commandité sans les sécuriser loolu man maa ko wax te ni ñuy séc te booy commandité say nit leen di sécuriser moo leen jalax ma ñëw teg sama baaraam ci seen commando yi ma wax leen Haj Ben Brahim moom lañ doon naan Pablo Escobaru Afrique turam dëgg di Haj Ben Brahim mi ngi judd 1976 à Kidal mi ngi juddoo ca Mali Touareg malien yooyu la fa la juddoo yaayam marocain la Oujda la juddoo yaay ji Oujda Maroc benn ville bu tudd Oujda yàgg naa fa jouer championnat dem jouer ji contre ñoom papa ji nekk benn malien moom mu nekkoon sàmmkatu sàmmkatu giléem ci désert bi ba rallye Paris Dakar amee la benn français juif pan ci désert bi oto la yoroon mu ñëw dimbale ko aidé ko ba waa ji aidé ko yëpp ba pare waa ji ni finalement course bi passé na damay jaay oto bi waa jaay oto bi envoyé xaalis bi France waa ji nag def moom collaboration ni ko léegi kañ def sax liggéey vente de voiture Europe France ñuy vendre oto yi Europe France Europe France ba mu demee si la xamanteeg douanier dëkk yu bëri mu maîtriser ko dugg ci business or ba mu duggee ci business or bi maîtriser nag su région Afrique bi yëpp xaaj benn boobu laa leen di tegal mu xam léegi doomu xadafi bi doomu xadafi bi mi ngi tudd al islam Kadhafi ba mu fa jógee ci la passé benn étape nag di def trafic de drogue cocaïne Bolivie lay jóge di ko jaaral léegi li ci gën a garaaw mooy nee nañu pays Afrique de l'Ouest yi drogue bi doon jaar yépp voie maritime pays bi nu njëkk a cité c'est le Sénégal la Guinée Conakry laa Guinée Bissau et la Sierra Leone mais Sénégal dafa am aussi benn ma xaat leen jox la beneen piste le ministre de la justice Khalid Ben Brahim boobu arrêté nañ ko Maroc moom ak président Wydad de Casablanca football bi arrêté nañ ko ak Wydad ma leen ni fa la juddoo gouverneur ba arrêté nañ ko Maroc jàpp nañ leen ndax affaire drogue boobu parce que ils l'ont fait pendant des années léegi arrêté nañ leen ñoom mais li ci garaaw ñu ne Afrique de l'Ouest pays yi mu doon jaar travers drogue boobu parce que cinq marins yooyu euh, commando commando marin porté disparu yooyu si lay ñëw Afrique de l'Ouest Sky News arabique journal la bu nekk fii Abu Dhabi bi ma ne mii capitale des Émirats arabes unis bi directeur Interpol international bi bi couvrir cent quatre-vingt-seize pays nekk seen directeur seen dëkk fii ñoom ñoo ko bind te ñu ngi ko bind le vingt cinq décembre deux mille vingt vingt quarante cinq dem leen xooli article bi man dama lay jox ay indices yu leer jox la chiffre jox la heure jox la date ñu ni pays Afrique de l'Ouest bi drogue bi di jaar le Sénégal en tête vogue maritime donc drogue bi jaar Sénégal mel ne sabar bu tas ñan ñooy complice ba drogue bi di jaar Sénégal mel ne autoroute quels sont les complices ministre de la justice ministre des forces armées loolu depuis nguur gi fi jógee la tàmbale dama bëgg ngeen di ko kan moo jàllax suñu cinq commando maritime yi ba ñu dee bato buy jàll da ngay jël ay hélico ñu jug ba ci kaw dem tiim bato bi fixé kook ay lampe commando marine yi soog a jël seen i bato dem loolu dafa sax terre à terre ci buñ la koy jàngal mais nga jël leen jàllax leen rek noonu ñu dem parce que tu veux les sacrifier le ministre de la justice dossier bi il faut les mettre la table te lii dama man lii dinañ ko taxawal Sénégal te Sénégal dinañ ko lijjanti lii il faut que ça s'arrête foofu tey wasalaam